waaw moom la waa ji ñëw tey. si Dakar Actu. Dakar Actu porte parole du parti socialiste ci boobam di Ablaye Wilane nee na. ñu dialogue dialogue rek lal ko ci ay combine bëri daal. ay deal ay dugalante. teg di laax yooyu waaw kay wala boog di wor sénégalais. buñ ñu demee ba war a dialogue dañ ko war a teg ci intérêt wu sénégalais yëpp et ci intérêt wu ñaari nit. Eh. ñoo nit na nga xam ne moom mooy Macky ak Ablaye journal bii di Dakar Actu nee na eh, wax nañu lan moo tax ba ñoom ñaar. guerre guerre mortal combat guerre total moy am sen diggante. comme ni ma kay waxoon diggante fi pox jakarlo jakarlo ablay wad ci meeting bi nee hmm képp ko xamni ne nañ sa doom te jugoo laas la doo jëf dara. loolu la xam ah, ablay moko wax. journal bi ne kon ablay wad ci kaddum yoy deugal na ñi nga xamne dañ doon wax ne ablay wad bo leen gisee muy tëb di dal japp bi japp dom doom dom doom jaa tax waaw am nañu ko doon wax na am nañu ko doon wax du loolu mhm. président Macky Sall nak li tax tamit ta juwo ak ablay dafa bëgg deuxième mandat te fi mu nekk nii Karim Wade mi tarkalla ni mu populaire mar d'Italie te man damaa seetlu que la nekk njiitum leen faw rek nga xaw am loolu ma ne xam ne bëgguñu ko woon yëpp ñii tax nañ ñu bëggu ko siiwal nañ Karim may koy nit may ko doole sénégalais boo mbéjee nit moo jaayeen ñu ànd ak waaw waaw waaw waaw bu nit sonnee ñu ànd ak moom ko gisee mu soox maar détail boo yëkkatee ba ci kaw mbot daane mbër muñ ci daan sax booy jóg nit ñu yërëm la ñu <laughs> yërëm la journal bi ne ñaar yi moo tax ba Ablaye Wade ak euh, Macky président mënuñoo juboo kii daa bëgg deuxième mandat kenn doom jën a génn kii xalaat ne doom ja bu génnee moo koy xel deuxième mandat te mu buux ko loolu Royal Air Maroc nag war nañ koo xoolaat bu baax a baax bagage si fay réer dañoo bëri torop réer ban xeetu réer noonu yu bëree bëri rek da naan may dinaaw ñu leen di jël sàccal mu ne journal bi ko bind du samay kàddu ñëw <laughs> grand place lu mu bind moom grand place moom ñëw ak ñun ci PDS bi nga xam ne ab tournée nationale lay waaj hmm. Ablaye Wade nag ci campagne la jëm PDS. ah waaw PDS ñi doon woote ay yëngu-yëngu léegi tournée lañ jël. waaw ah, kay UGTL di bànqaasu ndaw yi nga xam na ñoo nekk ci biir parti nag. waaw maanaam defaraat nañ ko. restructuré waat nañ ko. dooleel ko tamit. Mhm. waaw waaw jox koy ngànnaay ba mu doy. ci biir UGTL googu. waaw kay ci biir UGTL ba tey ndax populaire moom ngànnaay yooyu. ñu jox ay UGTL populaire ñëwoon ngeen ci Abdoulaye Wade mi ne jii ci altine ji. tribunal la jëm. dañ dañ ko convoqué wala lan. day dem. ci biir bi sax nee na ku bëgg ñëwal nee na day dem tribunal tey jii ci altine ji fekkee ji attew doom ji même bu dee doom ji di ñëw dana dem tribunal ah. ngir naqarlu ngir naqarlu jëf yi nga xam ne moom la Henri Grégoire Diop di président tribunal bi nekk kon renfort lay demee tey waaw kay nee na ndax ab yow président tribunal boo xam ni da ngay tere ab avocat di layal di layal say assesseur di démissionner y'a problème Wade wax loolu benn Wade wax loolu Wade nee na Wade nekk ci tribunal bi du dëgg du yoon te loolee dafa war a arrêté <laughs> waaw. ba daam sàkku si moom it si ñi di sàkku mu jóge fa Henri Gerégoire day dem tey tribunal ngir fekkee ji jëf yi nga xam ne moom la Henri Gerégoire Diop nekkee. Wade na du yoon. kon daal Wade tey day dem te dara du ko ngi ci yoon. nee na ku bëgg a dem <laughs> ñëwal maam laay laay laa mais Alioune Fall mi nga xam ne spécialiste la. ci wàllum politique nekk journaliste mi ngi ci kanamu yéene kaay gi di la populaire nee na Ablaye Wade mi. boo leen gisee mu changé yoon. programme ba mu defoon moo yàqu. parce que dafa amoon lu mu waxtaanee ak Macky Sall ci suuf benn offre bu mu defoon Macky pour Macky libéré doom ji. Ah, wax waxtaanu waxtaanu souterrain révélation la de. Aline Fall wax Fall di Aline Fall. moo wax nee na nag moo waraloon kilifa yooyu yëpp doon ci dox ay tànku jàmm bi mu amul benn intérêt ci président nag mbir ma tàbbi géej. président Abdoulaye Wade sopp doxalin nee na loolu mooy dëgg ci eh, moom daal révélation yi la def. ok ah, le populaire tey li mu bind ci info bari na. le populaire nee na encore. Mhm. Wade wax waxet euh, dafa attaqué woon Alioune Sall. rek ko Macky Sall. Mm. waaw attaqué fi Macky Sall. attaqué fi doomu Macky Sall. Mhm. mais bii muy préparé moom. ci première daam la jëm di Marème Faye Sall. soxna si si boppam. soxna sa ca boppam lay waajal ab song nag. loolu moom moom débat ci sax ak ah, na. Ah. laas laas ah, laas laas kon doo ci débat waaw waaw ci débat jabar moom dafa jege lool waaye xol. Mm-hmm. jabar dafa jege lool xolu borom këram. comme que borom kër gi waaw. moo jiite réew mi. Eh. doucement laas yéen kaay ñëw ak ñun ci coowal Karim Wade googe. Mm-hmm. Ablaye Wade nee na. dafa bëgg waa France ak waa Amérique dugal ci seen loxo. parce que moom doon na bañ ñu àttee ko fii. non non nee na dina bind ab këyit document boo xam ni fukki page lay doon ngir naqarlu ci dérive di tojaange yi nga xam ne kon moom la président Macky Sall nekk. fukki page ci ñaxtu. waaw kay ci ñaxtu ci naqarlu. waaw kon dérive yi bëri na. Hmm, léegi nag nee na te loolu dina ko jël yóbbu ko ci kër kilifa diine pour wax leen Macky li mu nekk ci biir réew mi dégg loolu. Macky Sall génnee na benn milliard ak genn wàll jox ko jigéen ñi. jaaree ci Moustapha ministre. Euh, jox ko jigéen ñi jàppale leen méridien président doo leen wax lu mu koom-koom économie waaw le soleil koom nga le soleil yéen kaay ñëw ñun ci Macky Sall mi nga xam ni wax na ak militant APR ya nekk ca Paris nee na leen gis nga bu amulee réew dañ koy teg ci siraatal mustaqim bu fa nekkulee du ñu am république témoin ndax le témoin yéen kaay ñëw ak ñun ci 4G bii ma la doon expliqué barki dee moo jaay ak test ba ñu nekk waaw bi ñu boobu orange nag dafa mel ni daa dëbb li njaa dóor état bi 31 décembre la mbir mi waroon a jeex ñoom yokkal nañ leen ñetti weer xaw ma la xew ah, ah, tàllal nañ waaw tàllal nañ ko le quotidien le quotidien ngi ci euh, Abdou Karim sal mi nga xam ne mooy DG wu ARTP digganteem ak collège ba neexul dara ña ne ca kër nekk même budget deux mille quinze bi sax dañu koo bloqué bloqué budget ba bloqué ci boppam euh, euh, bloqué ndax feeñ na ci libération libération moom fi mu ñëw tey mooy permis de conduire yi gars yi di wax ne gars yi permis dañ koy lijjanti waaw waaw journal bi nee na la ah naa dëggal na conduire yi dañ koy liggéey dañ koy jaay. ay teg diir soixante permis la ñuy jaay par semaine ci juróom ña ci fukki junni ak ñeent jàpp juróom-ñetti fukki junni soixante dix mille quatre vingt mille francs la ñuy jaayee permis service des mines yëngu na teg nañ loxo ñetti nit ay gars yu commandant Cheikh Sarr section recherche. ñoo leen jàpp ñu ngi ca kon. fii laa koy teg ndax day dellu saat may tëj. <laughs> kon enquête. enquête see ñëwaat kon enquête. enquête lu mu wax enquête yéen a kaay ñun ci droit de l'homme yi ñoo ko wax de nee nañ kumba am ndey kumba amul ndey am na ci àtte bi fii ci tribunal fii nii bu civil jàppante ak takk der day nga dee kon yow civil takk ba ay gañe yow civil bi am ci kolobaan wane na ko xale yi kolobaan tëj nañ leen ñaar fukki atu yàlla journal bi nag ci loolee la ñëw tey ak liggéey bu sañ tabay waaw balance bi daal fi mu nekk nii lu yàlla xam daal doy na weng na dégg mhm. tribune yéene kaay ñëw naa ngeen ci suñu naataango xaalis sekk mi nga xam ne takk na ñaareel ndeysaan deuxième daan waaw liet naa la ki mu takk Ndeye Fatou Ndiaye lay wuyoo ñu naan ko mami dëkk ca Thiès cité Lamy benn dëkk ñaari gaar waaw kay libération nag ak enquête nag ñëw nañu ci geneen takk goo xam ni moo gën a rëy takk beneen takk wii moom xaalis sax tane na moom ndax ki takk moom tarkaal la moom gars yi lu ñu dégg si takk xamuñu ko ah, ah bi nga xam ne mooy Tamaro Seydi waaw waaw siw na nag takk nañ ko ku ko takk waaw kay ko takk ka takk moom gis nga xam nga musuma musuma damay taxaw ba nga tëj ma doog a def mais tey. ku ko takk ku ko takk mooy lem journal euh, ko takk ki ko takk mooy ministre xaaral ma def koom guy gi jël ma direct voilà takk samay bagage ki takk Tamaro Seye. Ahmed ku takk ministre bi nga xam ne. Ah. moom lañ dénk lépp lu jëm. doucement rek takk der yi ci réew mi. Ah, ah, ministre de l'intérieur Abdoulaye Daouda Diallo. nga ni nga ni nga ministre de l'intérieur. bii réew Abdoulaye Diallo waaw wargaar ba nu mu war a toll. moo takk tamaro seen wargaar ba wargaar ba du ma ci débat demal demal tàggol tàggol. <laughs> jaa ngeen jëm ñoo dégg doo kon El Hadj Ahmed Aïdara du ñàkk kon dañ ci dikkaat ci revue de presse bi si wàllu fan si KFM lay doon ah. waaw fépp kay ak seen lay doon ak seen TV fi yaatal euh, kon dig daje bu juróom-ñaari waxtu jotee ba toftal ñeent fukki simila juróom ci beneen jotaay xibaar ci kàllaamay kocc lay doon ma fës kene fi jukki faram fàcc leen ko ba mu jàpp ni jaa